jàng kaamil amul ci néew man maa ko wax amul tuyaaba ma indil dalil nag bu jubee ma nangu jàngal nit ku génn àdduna euh, maanaam alquran moo xam ci armeel la moo xam ci kër ga la dara nekku ci dagan na hadis ma wax tettale na ko yonentu bi sallallahu alayhi moo ko wax daarul qutni moo ko solo mu ne yonentoo man daqalal qubuura fa qaraa qul huwa allahu ahad ihda achara marra summa sawabaha lil amwaat utiya min al ajri bi adadil amwaat ci armeel jàng fukki xul wallaahu ak benn yéene ko waa armeel ba ñoom ñëpp dañ ca jot waaye yow da nga am yool bu day li ñu nekk ci armeel ba kon nga xam ne kon loolu dara nekku ca boo demee ci albidaayatu wa nihaaya e, borom borom téere ba Ismail e, di imaadu diin wax na ne ibnu taymiya ba mu génnee àdduna avant ñu koy denc wàccee nañ ko kaamil loolu demal ci al bidaayatu wa nihaaya da nga ko ca fekk kon nga yëg ne kon jàngal nit daal alquran wala ñu jàng ko ci armeel loola dara nekku ci fii ku faatu ñu jàngal la fukki lixlaas ak benn jàngaleen ko fukki lixlaas ak benn léegi maashira tullaabil ilm billaahi aleykum sootul ixlaas qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakul lahu kufuwan ahad fan lañ ciy waxee amin fan la ñaan bi fan la nekk bismillahi rahmaani rahim ay junni yoon ma maa sax kooku lan la signifie bismillahi rahmaani rahim rahmaani rahim junni yoon wala lu ko ëpp ban sens la ah jàngaleen fukki li xalaas ak ñaar fukki li ñett nit ñi ñu ngi réer réer boo xam ne kenn jàngul qul huwallah gis na fukki lixlaas yooyu yow balaa ngay pare benn ñoom def nañ seen treize parce que lan lañuy wax lixlaas lixlaas lixlaas lixlaas kooku ban sens la am qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun ahad lu ci néew bi am billaahi aleyk la ci réew bi am kon waxoo defoo dara jàng nga nit génn àddina nga jàng alquran ñaanal ko ko lu sax la ci sunna même bu dee am na ñu ko woyafal am na ñu ko woyafal da ngay tiit sax man ma gis nit ku taxaw ne jàng jàng qul huwallahu ahad amul benn njëriñ ci am néew kenn mus sa gis lool jàng alquran nga ne amul njëriñ ci ab néew loolu fa la bu lëndëm yem te yonent sallallahu alayhi wasallam balaa may yegg sax ci yonent bi jumhurul fuqaha min alxanafiya wal malikiya wal xanaabila wa aksaru shafii boroom xam-xam yii nga xam ne ñooy ngënku lislaam ñoo donn yonent ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne jàng alquran jël yool ba may ko ku génn àddina day jot ca yool ba waaw benn waay bu taxaw fii rek kenn xamul fan la jóge ne loolu munta nekk munta nekk moom mooy kan ak ci kan la jàng ba wax ne loolu mënul nekk te ngënk yi wax ne mën na nekk Abdullah ibnu Omar nee na yonent mooy wax Abdullah ibnu Omar saxaaba la doomu si naa Omar waxul nee nañ de def ne man maa dégg man maa dégg Abdullah Omar may wax sami'tu rasulallahi sallallahu sallam يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة في قبره وفي رواية بفاتحة البقر بدلا من الفاتحة الكتاب أو من فاتحة الكتاب عبد الله ibn Omar nee na maa dégg yonent sallallahu alayhi wa sallam mu wax ñu ne ñu su ngeen amatee nit ku génn àddina bu leen ko tëj foofu fàtte ko fa nee na defar leen ko te jébbal ko boroomam mu ne waaye bu ngeen ko jébbalee boroomam ba noppi taxaw leen ci boppam jàngal ko fa faatixatul kitaab waaw bu dul woon jëriñ dana ko fa jàng taxaw leen ci bopp ba jàngal ko faatixatul kitaab taxaw ci tànk ya jàngal ko njeexantalu suuratu baqara njeexantalu suuratul baqara mu ne am na riyaa riwaaya bu wax na ne di faatihatil baqara njëlbéenu baqara ak mujj baqara taxaw ci bopp bi jàngal ko fa taxaw ci tànk yi jàngal ko fa waaw jàngal alquran néew bu amul woon benn njëriñ yonent dina wax lii saxaaba yi yow kay neel bu ma dee bu ma ko kenn jàngal rek loolu koy moo gën a yomb te képp kuñ dégg nga wax ko boo dee kenn war ko jàng bu nit ñi amoon fu ku gëm ne alquran jàngal ko nit du jot ci yool bi bu deewee kenn waru ko ko ñaanal nañ ko bàyyee noonu rek nee ne durarul muxtaar wa xaasiyatu ibnu abidin nee na def na benn bunt ci téeréem di ci tuddee bunt ba na mu tiitare bunt ba rek fii baabil xajji anil xayr mooy nga ajal nit mosu leen a gis nit kuy ajal nit màkk loolu am na wala déet loolu moom ñëpp nangu nañ na sax na ci lislaam waaw ajal nit màkk lan la ah, loolu lan la ajal nit màkk am na wooral nit am na yone salaa salaam waaye dikk ne na ko sama baay dafa génn àddina te dafa amoon boru koor naka laay def est-ce que mën naa ko ko wooral mu ne ko ndax bu amoon bor bàyyi ko fi di nga ko ko fayal mu ne ah, naa ko fay kay bu ma ko amee mu ne ko kon koy wooral mu woor ko may ko yool bi waaw nit taxaw ne jàng alxuraan nga jël yool bi may ko aji def mu ne amul njëriñ parce que nee na xul wallaahu ahad ba mu jeex ak ñaan amu ci allahu ahad ba mu jeex ak ñaan amu ci mais yow boo jàngee alquran ba pare lan ngay wax bu ñuy tëj xatmu bi allahuma balligh sawaaba ma qara'naahu wa barakata ma talawnaahu aw wa nuura ma talawnaahu min kitaabika alazizi hadiyatan waasilatan wa rahmatan mutasilatan ila ruhi abdika yonent nee ku jàng xarafu alquran am nga fukki tiyaaba waaw mais yow boo jàngee alquran ji ba pare da nga naan sunu borom yool bii ma am ci tiyaaba ji yool bii ma am ci njàng mi may naa ko diw yool bi may naa ko diw ñu ne non non non waroo mayee sa yool parce que wóoru la ndax di nga amaat leneen loo def yàlla nangu waaye yow nga xëy am junni saraxe ko daa wóor ndax suba di nga am beneen junni yow bu dee yow yow sag nay yegg na ci sag nay yegg na ci sa néew bi dem sax yéene woo ko aw yiw parce que da jàpp ne mënatoo defaat lu yàlla nangu yow kooku bu yaakaaree dara ci yow kóllëre ci ginnaawam xam nga ne kooku du nit waaw moo tax yooyu tegewul ci dara dara gënu ci metti souvent dañ koy mbubbale yonent ne yonent moo ko wax te loolu du dëgg yonent mosu ko wax yonent dafa saxal ñu ñaanal néew alquran nee na ab néew mën nañ ko saraxeel saraxeel ko togg ay ñam nga saraxeel ko mbaa nga jënd ay ñam saraxeel ko mbaa nga jël xaalis nga saraxeel ko ne yool man sama papa saraxeel naa ko ñaari junni yii te yool ba da ko fay fekk fay fekk nee na néew mën nañ ko ñaanal mën nga naafila sax yéene ko yool bi te da ko fay fekk mën nga ko umraal mais jëf ji du moom moo ko moom de yow tiyaaba ji nga am jëf ji yàlla moo ko moom yow tiyaaba ji nga ci am nga ne yàlla tiyaaba jii man may naa ko diw sa papa la sa xarit la sa doom la sa lu ne la nga ne man may naa ko diw yow sa yool nga ko may mais jaamu yàlla gi moom yàllaa ko moom nit kenn julli lu ko nit kenn wooralu ko nit kenn ajalu ko nit kenn umraalu ko yàlla nga ko defal mais tiyaaba ji nga ci am moom nga wax ne balligh sawaaba ma qaranaahu ila ruuxi fulaan voilà mooy yool bi may naa ko déglu